mu ne diiru li yére di góor gi di dund mboolem luy dem ci teraanga ci wàllu nag xar béy moo ko daan jox góor gi Cerno Muntaga daa yére booboo ko ko daan jox Maodo laa lay won kuy Maodo te secret boobu Cerno Muntaga yor Seydul Haaji Maalik ko jox am na genn góor sëñ Abdou nee na dafa mos a ñëw ci moom di ko laaj benn turi yàlla ndax mos nga dajeeg moom mu ne ko waaw mu ne cam boo waxuloon waaw li ma bañoon nit ñi xam ko ci man yépp ma def manifestation bi ci yow waaye waaw bi nga wax rek yàq na ko dinaa la ko jox di nga ci am dara waaye fi nga ci waroon a toll doo ko ci toll loo ciy déggee ñun ñépp boo xamee dara bu la sa kilifa di jox sa melal ni xamoo ko ndax donte benn la làmmiñam ak beneen làmmiñ du benn waaw kañ koo koy Cheikhul Hadj Malick ci la nag maam Alfa ñëw waxtaan ak jigéenam bi xam naa du fi xaj de xaju fi waaw waaye baax na ci la waxtaan ak jigéenam bi gannaaw bi mu dajeeg Cheikh ba mu wax comme kuy Maodo. won ko futuxaat yépp ubbi bunt yi won ko film yépp moom Cheikh Umar wax ko kuy Maodo pour dalal xelu jigéenam bi te loolu neex na gëm xam nga lu tax rabbi inni uridu an astaghfirullah kayfa tuhyil mawta du maam Ibrahima ko waxoon Ibrahima ya arini kayfa tuhyil mawta qaala awalam tu'min qaala bali walakin liyatma'inna qalbi xaala fa xud arbaatan min at-tayri fasurhunna summa udu ilayhi yaati summa uduhunna yaatiika saayan booboo gën a garaaw di maam Ibrahima ko laajoon borom moo tax Ibrahimiya moo tax Cheikh Umar soxla woon Ibrahimiya ndax lu lënt nga lijjanti ko fii ba yowmal xiyaam Ibrahimiya bi rekk ko mën. bu dul ibrahimiya bi doo ko mën foog nga jaar ci ibrahimiya pour lijjanti ko moo tax diggante Muhammadul Misri ak Muhammad euh, euh, diggante Muhammadul Misri ak euh, Aliou Haradim Barada ba mu ñagasee yonant bi wax la muy wax duma ca yegg wax la muy wax Cheikhuna Tidiane ba benn ko kenn kii génne naa ko ci tariixa bi Cheikhuna Tidiane ñaan ñaan rasulullahi mu ne ko bàyyi ma rek Muhammadul Misri kii daal euh, euh, Muhammadul Misri daal baax na bu ma waxati ay mbiram bu ma waxati ay mbiram bu ma waxati ay mbiram Cheikhuna yi ne ko fa ñukk jaar ci Ibrahima bi gis maam Ibrahima mu ne ko loo bëggoon mu ne ko sa bi laa bëgg nga ñaanal ma ko mu baalal sama taalibe bi ñuy wax Muhammadul Misri dafa juum rek <laughs> ah? gañ yonent bi maam Ibrahima feeñi ko yaqazatan ne ko eh, doom sama sët sama maa ngi lay ñaan baalalal Muhammadul Misri dafa juum mu ne baal naa ko Ibrahimiya fa la jaar moo tax Cheikh Umar xam doole Ibrahimiya ji Maodo nag moo contrôlé Ibrahimiya bi. bu doon oto moo yore volant bi ndax dégg wax mi bu baax moo contrôlé ibrahimiya bi sirran wa alaniyatan fi dunya wal axirati ni Seydina Cheikh nekkee mu middu kulla awliya rahman abil abbasi ahmada tijaani balaa kenn Seydina sheikh di ko tëbb Maodo lay laaj ndax ma tëbb ko li may wax ci xam-xam laa ko teg ibrahimiyatu bi loolu lay jox ci tariqa bi moo tax muhammadiya ibrahimiya ahmadiya xanafiya ahmadiya bi nag kenn xamu ca daara daara daara dara moo dëkkoo xatmiya bi moo tax ak katmiya bi moo tax kenn mënu caa wax dara mook ahmadiya bi ñoo jox ko xatta seexu na tijaani xamu ci dara huwa alkatmiya xamu ca dara moom mën a ci yem Cheikhuna Tijaani xam nga kañ la ciy xam dara yowmal xiyam yàlla ubbi bunt yépp ca nga déggee woyu sëñ haadi kii ci Fass Touré pat xoolal yenu lu ne xam lu ne di ndongol Maodo su tuuti waaf bañ Maodo écrasé ko moo tax nga dégg sëñ haat yi woy ko ne bu keroog yowmal xiyaamee taalibe cheikh yi di sàmbandaay ay yonant mu ne yonant di matt seen pol yi baaraam yi naan yaa layta nii yollente woon ñu bokk ci ñoñu Cheikhu Tidiane yonant yi la wax de ñooy matt seen lii mooy pol waay waay waay lu tax bokkuma ci woon lii jaalu asaabiahum fi ar bu dee ci gur ko am nu sagu yebanaanoo ahmadiya muhammadiya xanafiya ibrahimiya ibrahimiya bi nag mooy doxal àddina di doxal àllaaxira di doxal biir di doxal biti moo tax maam ibrahima am doole doole ah gisoo yowmal xiyam bu ñu wàccee arash yowma izin samaniya loolu la yàlla wax fi mu ne nii ñeenti malaaka ñoo téye arash yowmal xiyam day diis ba yeneen ñeenti dañuy dem renforcer leen ñu wàccee arash yowma izin samaniya muy juróom-ñetti malaayika damsasun masasun xamsun masisun karimun barxaasun barxaasun barxoosun ñay def lasaraar yéen laa ko may foo dégg ñu naan la damsasun masasun xamsun masisun xafi barxaasun barxaasun barxoosun foofu lañ ko tibbee du tur ya tur ya xaqiqatan boo ci xamee benn rek sa àddina baax sa àllaaxira baax bokkul ak moom tos ah yéen borom la sara yi xam nañ li may man ci télévision la yoo gars yi xam nañ li may wax moo nekk ci sirru muntaw yi ñiy jàng sirru muntaw yi ci lasaraal ci jalaal xam nañ li may wax aham mun saqakon xalawun yesul hmm. hmm? Sirru Muntawi boo ko jàngee ba noppi dangay jàng jàng Sirru Muntawi bi boo jàngee Sirru Muntawi bi ba noppi nag loolu la nga ca war a teg damsasun massasun hamsun masisun karimun barxaasun barxaasun barxoosun ñiy def lasraar ma dimbale leen ma dama ne la lasraar yeggut fet yàlla dolli sutura ibrahimiya bi loolu lay dox dafa garaaw ibrahimiya bi moo tax Cheikh Oumar rey ci boppam parce que moo contrôlé àddina ak àllaaxira te àddina ak àllaaxira bu jeexee barzaq ci des barzaq ba déedéet barzaq sax ci la bokk alqiyaamatu rek moo ci bokkut te ki contrôlé àddina ak àllaaxira contrôlé barzaq bu ñu demee xiyaama moom la ñuy laaj laa yusal am maa yafal wa hum laa yusalu amma yafal wa hum yusaluuna ñoom la ñuy laaj foofu foofoo indi Maodo ne maay juróomeel bi foofu laay dugg si bu may ñëw dama ne ci yoon laa yusalu amma yafal wa hum yusaluun wa hum hum man hum jeex na man hum ah ah waaw waaw kazalika nuri ibrahima malakuta samawati wal ard li yakuna min al muqinina wa kazalika nuri ibrahima malakuta samawati wal ard wa li yakuna minal muuqiniina Cheikh Al Hadj boobu la dugg gis futuuxaat ya fa nekk coppati Maodo laa <laughs> ilaaha illallah muhammad rasulullah amin cey Maodo cey Maodo Mhm. yal nañu ko yàlla fayal yal nañu ko yàlla fayal yal nañu ko yàlla fayal moo tax diggante boobu maam Ibrahima ko doy waar la moo tax arash buñ ko wàccee ëllëg pour yàlla pëseel jaam ñi seen jëf yi maam Ibrahima mooy toog ci ndeyjooru arash yonent bi toog ci càmmoñu arash ñi war a dem àjjana ñépp jaar ci ndeyjooru arash yal nañu ci yàlla boole ñi war a dem safara yépp jaar ci càmmoñu arash dem safara yal nañu ci yàlla musal lu tax maam Ibrahima di toog ndeyjooru arash yonent bi di toog càmmoñu arash yonent bee gënoon a jekk ci ndeyjooru arash ndax moo wax ne bul di nangoo lu dul ndey bul di joxee càmmoñ bul di joxe naanee càmmoñ bul di lekkee càmmoñ bul di joxee càmmoñ ndax seytaane léppam càmmoñ la koy defee te ñiy dem safara ëllëg càmmoñu aras la ñuy jaar dem safara lu xadis la bu yonent bi wax kon lu tax muy toog ci càmmoñ maam Ibrahima day recevoir yonant bi day xettali maam Ibrahima la ko teg ndeyjooru aras ñi texe lay resevoir yonent bi la ko teg ci càmmoñu aras day bañ kenn échappé ci xeetam dem safara te vigilance ndax yàlla ko ne wala saw fa yuutika rabbuka fatardaa dinaa la jox ba nga doyal moo tax muy toog càmmoñu aras ñi ñuy pamti pamtee di yóbbu safara léeg mu gis ñu pamti sii di Kunta mu ne comment taxaw moo contrôlé malaaka yi foofu taxaw leen ñu taxaw mu ne kii bokku ci min ahli njaasaan wuññu leen ñu ne ko yalax bàyyi yonent bi téye loxoom jox maam Ibrahima zumaran bi ngay dégg zumaran ay kuréel la ñuy doon am na ñoo xam ne benn benn lañ leen di pamte pamte am na ñoo xam ne dañ leen di jiital comme géddi xar zumaran ji du dégg zumaran hatta iza jaauha futihat avant ñu fay yegg nag zumaran ji bu ñu leen pamte pamtee ba yegg si yonent bi séen leen len nay melxati ci seen lex mooy laa ilaha illallah muhammadu rasulullah mooy melxati ci seen jë yonent bi ne wax leen leen ñu taxaw ñu taxaw mu ne zumaran min min zurriyati buñ dem ñii ci man lañ bokk xanaa gisu leen laa ilaha illallah bi ci ñoom malaaka yi insisté mu ne leen xool leen malaaka yi doo la xool seen jëy yi gis muy reflété wu laa ilaha illallah muhammadu rasulullah moo tax nga dégg mu ne kenn du dugg safara te mosa wax laa ilaha illallah muhammadu rasulullah moo tax yàlla ñu dolli sutura zumaran jooju la de am ñoo xam ne faw jën tax Maodo wéyal ko boppam faw jën hmm? maa la ko wax moom xam na ñan la mu teel leen a dogandu ci àddina def stand by pause faw jën faw jën fi diini faw jën fa faw jën fa la ko jëlee ña war a dem lay xettali te demaguñ la tax mu indi ko fii woy ko d'abord xayaatu barzaq moo tax ñu bañ leen fa fitnaal d'abord ñu am stan foofu ba dekki jot zumar jooju nag ñi ñu war a pamte pamte rasulullahi mooy toog mooy shafaatul kubra muzni eh, shafaatul muznibina borom bàkkaar ya lay ràmm foofu mu ne malaaka yi wëññi leen leen ñu wëññi leen mu paas maam Ibrahima mu recevoir leen ñu continuer waaw li Malick doon wax gaa yi di mer fa la ko jëlee di mooy jël centre maam Ibrahima mu dugal wala sawfa yutika rabbuka fatarda xam nga lu tax alam yajidka yatiman fa aawaa maa la fekkoon nga namm leen lool ci bëgg leen a gis ma fexe ba nga tàppook ñoom fa aawa moo tax Cheikh Al Hadj Omar sonn ci nag def ci itte wax lépp maam Alpha moo tax maam Alpha bu bokkutoon ci aktaab yi du ko àttan ndax am na koo xam ne bu gis yonent bi fan yooyu day dof rek wala yaramam day diis gan du ko àttan muy wax feebar ak a jóg waxuma la nga gis yonent bi yaqazatan nii leer gi frappé rek boo boo amul kiiraay doo ko gis yonent bi du caaxaan comme maam Alfa nag ci yi la bokk àttan na ko mu ubbi bunt yëpp wan ko ne ko sa sët bii na sa jeet baat bii na nga def ci moom très attention ndax moo tax nga nekk yow su du moom doo nekk dal di ne ko tàllalal mu tàllal mu jox ko tariqa bi bind ijaaza itlaaq jox ko moom maam alfa bind ijaaza itlaaq ne ko sa jarbaat boobu ñu fasagul sëy ba dégg maa ngi koy gis nii bind lu kenn mësul ñeme te ku ko weddi essayé ko bu dee xam nga ko bind ismulaayil azamil kabir ci kayit wala ci xeer ñaara ci mos a am ndigal cheikhu na tijaani cheikh Umar moo tax maamal maam Abdoulaye Niass njëkk a wax ci njëlbeen du hasard de mooy cheikh tijaani nit ñu ñuul ñi cheikhu na tijaani yonent bee ko ci jox mbi ndigal ismulaayil azamil kabir mu bind ko ci xeer suul ko ca pied ba ca zawiyem ba ne yàlla nangu na nangu ku fa dugg jaamu fa par la force tawhan aw karhan yàlla daf koy nangu julli boo fa julli junniy ràkka benn ràkka bu ne mille la moo tax Maodo teel mu xam kuy moom ilaahi bi qutbil aarifina imaamina rajaa yi lu tax mu ne imaamina ilaahi bi qutbil aarifina imaamina rajaa'i wa gawsi lil ilaahi wasilati xitaami ca azal nizaami lil wilaayati jumlatan mu ngi fii ci Maodo déglu bi bu baax mu ne ilaahi li tax mu ne ilaahi ilaahi bi qutbil aarifiina imaamina lu tax mu ne al aarif billaahi lu tax mu indi baatu aarif lu tax Maodo indi baatu aarif indi baatu qutbu ilaahi bi qutbil aarifiina lu tax waxul imaami mu ne imaamina asxaabuhu wa awlaaduhu wa zurriyatuhu moo tax mu ne imaamina ak moom ñam dirigé ñu topp ci ginnaawam moo tax mu ne imaamina ilaahi bi qutbil aarifina imaamina fa sama borom wasilatan mooy sama wasila Hmm? xitaami nizaami ah, ba ca dàq xoolal nizaami foofa nizaama fa am moo tax désordre amu fa hmm? nizaam ba muy wax nag bii la nasab geño gi dafa teel a xam mu dugg ci ibrahimiya bi pour ñamuy jur moom ñu doon ko ci xilaafa gi bay ca azal moo tax mu ne xitaami nizaami lil wilaayati bi gaa yi yaakaar yépp jumlatan maanaam jumlatul wilaayati Maodo du nit bokkul ci nit yi du nit sa turandoo du nit ah. xitaami nizaami lil wilaayati jumlatan mu yëg ne wax bi kowe na mu ne bihi artajil xufraana lu tax waxut yàlla bihi ci Cheikhuna Tijaani artajil xufraana min kulli zallati waxul bàkkaar de zilla la wax zilla mooy gàcce gàcce gàcce jox jur torox tànge bu la neexee firee ko gàcce bu la neexee firee ko torox tànge waaye zilla mooy gàcce mooy wilaaye gi nga may yen sama njaboot war ko yenu ëllëg yàlla bu ma ci am gàcce laa <laughs> ilaaha illallah xitaami nizaami lil wilaayati jumlatan bihi artajil gufraana min kulli dallati bihi fatxal magaaliqi kulliha magaaliqi kulliha ñu ne ko ci ban koñ mu ne wiqaayatu na tijjaani ci kii laa ko soxla wiqaayatu na tijjaani min kulli shiddati fu mu tàngee ba ñagas rek moom lay gis wi xaaye na garanti bi dugg su gàccee naroon am sax mu taxaw ne bu mu am te kooku bu mu nee bu mu am du am mooy Cheikhu na Tijaan moo tax mu ne xitaami nizaami lil wilayati jumlatan moo tax bihi artajil xufraana min kulli zallati waxul bàkkaar de bu doon bàkkaar ca yàlla la koy delloo waaye intermédiaire la soxla bien avant gàcce moo tax mu ne bihi artajil gufraana min kulli zillati zallati bihi artajil fatxal maxaaliqi kulliha ku ma jur ba ci samay sët buy juddu am fatxu jeex na ñu ne ko ci ban mu ne wiqaayatu na tijjaani ci kii laa ko sës ndax boo ko fa sësut doo dem min kulli shiddati fu mu tàngee ñagas garaaw na taxaw rek moom Cheikhuna Tidiane ma sama conscience dal wiqaayatuna Tidiane min kulli shiddati Cheikhuna Tidiane ne ko nangu naa moo tax gisal lam ca teg zawaayahu wa kam astaki indal ilaahi ziyaaratan mu ne ko waroon naa ñëw waaye toog fii di wax ak yow du teggin ah waroon naa ñëw sukk ci sa kanam xam nga lu tax way eh, xam nga lu tax dafa waroon a dem sukk ci kanamam ibrahim yetoo bee tax mais li lay won ne kenn du Maodo xam nga lu tax defu ko dañ ko ko yombalal xam nga lu tax bi waasitatu Cheikh Alhaaji Omar xam nga lu tax walaw annahum id dalamu anfusahum jaa'uuka fastaxfaru llaha wastaxfara lahum rasul la wajadu llaha tawaaban rahiman min kulli zallati ibrahimiya ah walaw annahum id dalamu anfusahum jaa'uuka rasulullahi tax yàlla di wax ku moom ibrahimiya bi ku tudd rasulullah walaw annahum iz zalamu anfusahum jaauka fastaghfarullah wa staghfara lahum rasul la wajadu llaha tawaaban rahiman min kulli zallati bihi artaji lgufrana min kulli zallati bihi artaji lfatha almagaliqi kulliha wiqayatuna tijaani min kulli shiddati buum bu teengee dañ ko yeew ci bopp yëkku kuy kuy mi mooy Seexu Tijaani wiqaayatuna tiijaan min kulli shiddati wa kam ashtaki indal ilaahi ziyaaratan damaa waroon a dem waaye toog fii di wax ak yow di teggin waaye yaa ma ko may nag wa kam ashtaki indal ilaahi ziyaaratan li ma téye ba mënumaa ñëw ziyaara la xam nga ko mission boo ma chargé la te mission bi war moo tax nga dëj ma fi maa ngi koy jéggalu nag mënoon naa boole ñaar yépp waaye yaa ma ne toogal toogal bi nga ma wax donte may nga ma ko maa ngi koy jéggalu min ko lisallati wa kam astaki inda lillahi ziyaratan zawayaahu lakin al inaana bi xiddati lu tax wow zaw zawiyati zawayaahu basam ba ca la bokk cheikhuna tijaani ba mu suulee ismulaahil azamil kabir foofa dafa ñaan yàlla ne ko ku tabaxati zawiya tuddee ma ko rek yéegal ko ci ku tax tabaxati zawiya tuddee ma ko rek maa ngi lay ñaan yow rasulullah yéegal ko ci sama zawiya bii yonent bi ci la ko door a jox ndigal ne ko bindal ismulaahil azam ci xeer mu bind ko mu ne ko suul ko ci poto bi mooy poto bi xaw a jàkkaarloo ko raw rawdu Cheikh Sidi Ahmad Tidiane te Cheikhul Hadj Abdoul Aziz daan fa toog bu demee Faas fa la daan toog rek jàkkaarloog rawdu bi foofu la ismu laahil azam bi nekk ñaareel ki bind ismu laahil azamil kabir ci kayit kenn ko mës a bind nag ci kayit kayit laa wax de waraqa kayit moom ba àddina tukkee ba bu di wal kenn ko mës a bind ci kayit mooy Cheikh Al fuuti Omar keneen ku ko bind ci kayit ñu effacé la max xam nga max dootoo existe ci àddina ak àllaaxira buñ vérifier kay yi sa tur di ca nekk haaruna inna qaaru qaaruna inna qaaruna kaana min qawmi muuse fa baxee maa inna mafatixahu la tanuu bil usbati ulil quwa id qaala lahu qawmuhu la tafrax inna allaha la yuhibu alfarixin wabtaxi fi ma ataaka allahu daal al axirata wala tansa nasibaka min addunia wa axsin kana kama axsana allahu ilayk dafa xamoon ismullahi al azam al kabir bi waaye moom ci suuf la ko bindoon mu ngi ko sàccee woon ci yoon ci yàlla Muusa ca ba muy labal Firawna ca baxaru xalsum bi mu dóoree yet wi dóor xarut mu dóor xarut mu dóor xarut mu bind ismulaayil adamil kabir bi ci suuf ndekete xaaru naa ngi koy sàcc capté na ko bu yàgg mu bind ko ci suuf doxut yàlla ne ko ki war a doxal tur wi laa bëgg nga tudd ko mu ne muhammadun rasulullahi ter mu xat fan falax waaw moo tax Cheikh Umar a xam li xew mu ñëw ci ibrahimiyatu bi nag fa la jaar bi jox Seydul Xaaji Malik li mu am bind nag ismalahil azamil kabir jox ma am alf ne ko wird wii ma la may bi nga tàllalee Maodo tàllal na loxoom yi teg ko ci sa kaw loxo te gisoo ni ma la mayee laa ko mayee waaye bu ñëwee yeesalal ko waaye maa ko may mu ne ko xanaa gisoo bi nga tàllale loxoom yaa ngi tege ci sa kaw loxo yi gisoo ko mu génnee kayit gi daf ko bind ba noppi lem ko ne ko bii soo ko ubbee sa bët bu ciy tege sa bët bi dana tuuru say bët dana tuuru sa liimaan dana naaw boo dee dem safara mu ne ko nu may def mu ne ko denc ko ba kii ma lay wax gane àddina juddu muy Maodo Fawade Wele bu juddoo jàngal Qur'an ba mokkal alxuraan bés bi nga koy dalal lax Laxdari bés boobu may ko tariqa bi bés boobu laa bëgg nga jox ko ijaaza itlaq bii ma la jox boo noppee nag lii ma lem jox ko ko te toog duglu ko moo tax Maodo daan wax ne yii maa ko njëkk a am ci tariqa bi yëguma ku ko amut sama gannaaw ku ko am ñu ne ko ban mu ne xaala cheikh ci benn tàkkusaan muy laxdari may wird ci benn tàkkusaan ijaaza itlaaq ci benn tàkkusaan ismullahi al azamil kabir ci benn tàkkusaan moo tax dañ koy tënk nag ba beneen yoon du fi xaj ndax mooy kuñ dul cof xaju fi de à ah, suivre lay doon boobu dama koy nëbbagum moo tax dam tey damay ubbi téere bi ñu xam ne ma fi rek di wax lu ma neex alaaji rawaan mbay professeur rawan moo def lii dat yi rek laa soxla ndax daf ci sonn dafa indi dat indi jour indi bés indi lépp la yi indi werante yi ci am yépp la wax dat yi préciser ki ko wax ñi ko wax ci jamono booba lu mu tombeel dañ mën a indi jour indi dat rawan sonn na ci de moo tax nag bi maam Alfa ñëwee bi maam Ousmane ñëwee ci gàttal kenn du ko gàttal sax maam Ousmane dafa ñëw waxanteeg fekk nag ñibbisi nañ maam Alfa ñibbisi na ba muy ñibbi nag ba mu ko joxee ndënkaane berkel boobu nag bàyyil ma ko fa maa ko moom maamal fa xaw a tig mu ne ko ah sama yóbbante bi nga jaay fukk la woon di juróom-ñeent fi nekk benn bi nga jaay maa ko moom sër bi nga jaay sama sër la di maa ko moom kon bàyyi fi mberkel bi maa ko moom moo ko moom di mu ne ko ndax bëgguma mu manqué tilka asharatun kaamila ñu ñibbi wax nañ ne tuuti fan yu tuuti matul weer lañ ci teg matul weer lañ ci teg maam Ousmane jóge Jolof dox ci itte boobu muy téere bi mu doon wut am na ñu ne lixmiraaru la am na nañu wax yeneen téere bi mu ñëwee maam Alpha téye ko waxtaan ak moom wisiteloo ko daara ji ndax daara alxuraan na fa ne woon nit ñi ndongo yi di jàng mu xamal ko ne daara jaa ngi nii sa daara la téere boobu daal boo yàkkamtiwul mën naa fexe rek fekk Cheikh Omar moo ko noonu na ko nax ba mu toog bu toogee nga proposé ko sa jigéen bi bi mu ñëwee nag mooy naxtaan ak moom di ko naxtaan ak moom di naxtaan ak moom ba maam Alpha nangoo toog maam maam Ousmane mu ne ko dinaa lijjanti téere bi ba nga jot ci sotti ko door a dem xam nga loolu temps la loolu temps la xam nga. mu ngi bëgg rek naxtaan ko bem toog mu ne ko léegi dama bëgg nga toog ma toppatoo téere bi indi ko bi mu toppatoo téere bi nag muy ñëw le muy ñëw mu ne ko dama bëgg nga yor daara ji di jàngale bu xëyee nag jël dépense bi moom maam Alpha jox ko maam Ousmane ne ko joxeel mu ngi koy jàngal ba bés bi dël si mu ne ko waaw ah, man sama jigéen bii ci kër gi xamoo ko mu ne ko gisuma ko boobu maam maam Fawade Wele du génn ci néeg bi jàkka ji te jàkka ji fi muy nekk ak fi góor ñi di nekk du benn mu ne ko danga am jigéen mu ne ko sama jigéen a ngi fii ci biir dama la ko bëggoon dënk mu ne ko ah loolu mënul nekk fa ma jógee bàyyi naa fa soxna te doxandéem la téere lay topp rek te yoruma it lu ma mën a takkee soxna daal am naa ngant yu dajee ci ma maam Alpha ne ko loolu du ngant teggil naa la yépp bu dee alal danaa la ko jox a ah, boo ñibbee du yàq dara ca soxna ba nga fa bàyyi condition boo bëgg rek mën nañ la ko ci may mu ne ko ah, may ma ba ëllëg bi bër setee ñu jàngale ci daara ji bay julli tisbaar mu ne ko li nga ma doon wax biig ànd naa ci fekk Cheikh Al Hadj jox foo jox benn tur ne ko rëkk ko soo ko rëkkut du nangu ndax sa jarbaat bi fa ne ca azal dafa dëgër bopp ku ko fa génnee rek la bañ <laughs> da nga dégg Serigne Cheikh daan wax ne man dama dëgër bopp <laughs> maam Alfa rëkk tur wi maam Ousmane nangu mu dënk ko jigéen ji yor daara ji di jàngale maam fa yor lépp dépense beeg yépp di ko jox muy jàngale ba téere bi ñëw mu jox ko ne ko sottil diggante bi téere bi ñëwee ak bi mu koy sotti ñaari weer la na ndax dégg ngeen li may wax bu baax fi téere bi ñëwee fi mu koy sotti pour mën ko yóbbaale ñaari weer tembe la bi muy mat rek ca ñaareeli fan ba ñetteel ba la tàggu mam alfa ne ko dama bëgg a yeggaat jolof ndax yàgg naa àll ndekete boobu soxna si wan na lor moo tax nga nangu ñépp ne maam Seydul Xaaji Malik bi mu amee ñaari weer ci biir yaayam la bàyyam génn àddina pour nga xam ne yow wax bi fu mu jógee bi góor gi tàggoo ñibbi nag la ko maam alfa gunge ba muy génn dëkk bi mu ne ko ah sa jigéen bi de bu yaram wi soppeeku dafa mel ni yaram mi dafa soppeeku ci diggante bi dama la doon ñaan su fekkee ne yàlla def na jàmm loo ci joxe ndigal mu ne ko bu dee jigéen tuddeel ma ko sama ndey bu dee góor tuddeel ma ko sama sëriñ bi ma jàngal alxuraan kon Maodo nitu ko lëre la ca asal nitu alxuraan la ca azal mu ne ko sama sëriñ bi ma jàngal alxuraan man Ousmane mu ngi tudd malik Sow Malick Sow boobu nag laa bëgg nga tuddeel ma ko bu dee góor bu dee jigéen nag tuddee ko sama ndey mu gunge ko mu dem maam Ousmane ñibbisi semaine ñaari semaine duñ dugg ci diggante boobu histoire am ci ay mbir yu doy waar xeex am ci lañ ko jamee ci tànk tànk bi sol ndox nawet la woon góor gi gaañu boobu maam al maam Seydi Hadj Malick mu ngi am ñaari weer ci biir yaayam ku teel jirim la bi mu demee nag ba juróom-ñeenti weer yi mag fa la werante amee moo tax rawaxaan indi na yépp mu ne dafa am ñu ne mu ngi juddu moom Cheikhul Hadj Malick mu ne am na ñu wax ne 1852 mu ne am na ñu wax 1853 mu ne am na ñu wax 1855 mu ne am na ñu wax 1856 mu ne am na ñu wax 1857 mu ne yooyu yëpp nag ci hijriya beeg yëpp rawaan indi na ko mu ne am na ñu wax sax ba joxe date précise ci ci date yi mu ne am na ñu wax ne sax. le vingt cinq euh, mu ne am na ñu indi le vingt cinq mai mu am na ñu indi le vingt cinq avril ah, mu ne am na ñu indi sax ci mois de mars ah, am na ñu indi mois de mars am na ñu indi mu ne ñi ci ëpp nag lii not 25 février lañ bind ñoom mu ne ñuy wax mille 25 euh, février 1855 la ñuy wax wala 1856 waaye bi ñu gën a doy nag gannaaw date yëpp ñu wax bee laaj tànn ñun moom lañuy tànn waaw nee na daal Seydil Hadji Malick mu ngi gane àddina 1856 mooy dëppook 66 ans yi mu dund du loolu la ñëpp wax d'accord ni moom la Maodo dund waaw 1856 ak 1927 ñaata at la ah 66 ans 1800 astafurlah 22 sëñ Touba moo génn àddina 27 1820 1922 da ngay jël 1922 teg ci kaw nga jël 1856 teg ci suuf moyen ko. lu lay jox ah 66 ans du loolu la damay bañ ñu ne jaxase na 66 ans la Maodo dund ok loolu rek laa soxla woon ci téere bi